ci noonu nag lañ leen di waxee wanee ni que ni moom yaay faal manewul li nga xam ni moo di seet kese mais togg tamit yàlla def na ay waajuram jàngal nañ ko ndax li mu def comme sànq ni ma ko waxee dafa am solo euh, moom jënd jiwul cere commandé mais lépp daf ko préféré def ko loxoom maanaam sans l'aide de personne kenn jàppalewu ko ci kon nga xam ni ko ay waajuram taataan nañ ko ci togg ci noonu nag euh, la ñu ñëwee nag fi nga xam ni moo di tey bi tey na cereem ba mu muus instant bi nag da koo wàcce di toj li nga xam ni moo di doomi ngir mën a def rek cere bu mucc ay <laughs> dama koy bàyyi rek am yow mu daal di commentaire instant bi nii lii muy def nii nan la ko tuddee waaw cere ji laay toj sama cere mhm. maa ngi toj cere bi waaw moo tax nga nga wàcce ko ci rek di dóor di dëbb boo yéexee cere ji bu seddee dootul gaaw toj moo ca ci tàngaay bi rek nga koy ñeme rek daal di koy dóor mu tas du dëgg instant bi danga koy danga koy defaat ci cin li danga koy defaat ci tay bi wala danga koy pare na instant cere bi pareegul parce bu ñu tojee pare après dinañuy defar laalo bi parce que cere bu am laalo ñu togg waaw moom la ñuy mel ni li nga defoon sànq bi nga koy araw noo nga ko defaat maanaam da ngaa nekk instant bi nii di ko layaat lan nga ciy defaat nii dangay ngay génne waar yu dijji wala. waaw cere kay boo ko tëjee pare faaw nga layaat ko mhm. ah. ndax boo xoolee waa parce que coono bii nag moom la ci xale yi di daw moo tax ñuy commandé cere. mu mel ni coono bi tamit dafa mel ni miis nga ko. mais cere yooyu noonu. ak yi wax xoole bon ñu benn xool sama cere cere yi ñuy jaay si mbedd bi ndax nduróo nañ wala bokk nañ rek waaw. àdduna lu yomb baaxut lu metti moo gën a baax lu yomb mhm. ci lépp nag waaw. kon daal yaay Fall daal mi ngi wax xale yi nga xam ne dañuy nekk di jënd ji cere wala ñuy commandé. ngeen def nii ndax dafa mel ni sax bii moo ëpp barke ndax ku ci ni tam xarit moom coono gi dafa mel ni taamu nañ ko ci ngeen koy subir. est-ce que dinañ ko def est que doo leen bàyyi dem ci mairie yi jënd cere rek ah moo gën a yomb de yi dafa xaw a saf xale yi ñemewuñu tàngaay bi <laughs> gis nga sànq bi ma teggee affaire yi saxaar boobu ak tàngaay boobu na ñoo xam ne dèjà ñemewuñu ko ñemewuñu ko te mënuñu ko aussi tamit. sànq sama biir wax maa ngi wax ngay ree mais instant yi ban jinn nga fi invité mu lay toggule kan man kenn ñëwut man doog maa toog tey benn jinne ñëwul yaay faal moo toog waaw. la nga koy gis. Ah, parce nag macha allah xale la waaye affaire ni mu koy defee comme mag moo tiim affaire nañ waxante dëgg nag. surtout maa yi waaw. man moom dèjà bu may toog bëgguma ko may jàppale damay bëgg defar sama mbubb. parce que bu boobaa xa foofu koo gis muy togg am ñu koy war di ko dimbali kooku mënu ku mën da ngay engagé sa bopp nga def lu dëkk waaye am na su ñoo xam ne moom dañuy def ba pare di woote ndimbal boo réeree rek daa di woote wala ñu dugg ci internet bi di xool togg. mu ci mel <laughs> cere. ñu indi am xarit daal da kaa war defaral sa bopp mooy dëgg. Mhm. kon am na solo. di leen wax ni topp leen ñu sunu différentes plateformes Univers Info TV Medina TV Sen Média TV li leen leen di indil saa su bëgg li leen di mettre au cœur de l'actualité di leen indil ay information fu mu gën a fiable te leer ci noonu nag gis ngeen li nga xam ne moom lañ leen di toppal muy cere itam xarit donc daw leen gaaw ngeen abonné ci abonné ci plateforme yi partager liker waaw bu ko defee nag ñu daal def tuuti pose ñu daal leen di xaaral ci laalo bi ak sim bekk yu xeetu baax baax yi mu ci nar a def yéen leen ko foofu rek day leer tey spécial cere avec yaay Fall la grande voyante borom seetkat seet bu seetkat bu mag bi borom jinne yi <laughs> borom rab yéeg lépp xaar leen ko. donc comme ni ñu leen koy toppalee rek gis ngeen nag instant bi nag euh, mu ngi nekk di laalo li nga xam ne moo di cere ji gis ngeen ni ko yaay faal di laalowee waaw ngir mu bàyyi rek ndaxte yaa ngi gis mi ngi koy baaje ak loxoom ngir mu mu bàyyeeku ràccu moom daal nee naa la cere xale koy def macha allah mi ngi koy def bu baax a baax. Mhm. gis ngeen ni ko yaay Fall la grande voyante di di laalawee ginnaaw bi mu ko tayee wàcce ko ci cin li ngeen gis sànq lay bi mu ko lay génne doom yi xam nga jéem a harmoniser bu nekk palaasam ci la ko nekkee nii nag instant bi di ko laalo yokk na gaz ba nag da laalo laalo na ko pare di ko delloowaat ci ci li nga xam ne mooy tayukaay bi gis ngeen ni mu koy defee nii am na solo li nga xam ne moom la laalo moom lay jëlaat nag euh, defar ko ci ci inde bi ngir tayaat ko je pense que yaay bi mooy nekk dernier tay bi mhm, mooy nekk dernier tay bi parce que laalo na ba pare mhm. léegi rek da koy da ko da di tayaat nag gis ngeen ni mu koy defee nii am na solo danaa leen dañ leen koy toppal ba mu yàkk soobe yàlla benn détail du leen ci romb ci ndugg baag ci araw baag mooñ ba xolli lijum ba tay ba xippati bi ba nim koy defee laalo lépp dañ leen koy toppal bomb baag yépp dañ leen koy toppal na cere ji yemb rek pare ngeen xam ne lii arnaqué wuñ fi lenn goowul kenn di ko aidé lépp moo ko defar moom sël moom képp moom dong kenn jàpp ci kese lépp lañ leen di toppal gis ngeen nam koy tayee lépp la mën a àndal ak cere yaay faal lépp la mën a àndal ndax lim ci jënd ci ay mécanicien bu si da koo bomb awaa <laughs> baax na ku gumba da doo gis baa nga kataraak ok kon kon kon kon kon ñu ngi leen koy kiiwal fii ba ba soos baak bomb bi li nga xam ne moo di cere itam xarit yi ànd ci ak yaay faal instant bi nag fi mu toll gis ngeen ko mi ngi nekk di marine yàpp bi mu ngi marine li nga xam ne tamit moo di ginaar bi ndax nee naa dafa pàcce dafa boole yàpp bi ak ginaar bi sànq ci biir waxam nee na carrément ni yàpp bi da koy safal mooy tax mu am goût ci la ko pàccee ak li nga xam ne moo di ginaar gi gis ngeen ni mu koy mariner nag wax dëgg fa neex yàlla xeeti saf-safalam yi mu ciy def mhm. gis nga ni instant bii nag mi ngi koy marine bu baax a baax a baax gis ngeen ni muy def ginaar gi ku ne xam na ni ginaar dafa lawet bu ci deful nii rek du am lim ci bëgg moo tax ma ngi koy mariner mariner bu am jom poobar baax nag <laughs> gis ngeen ko nee lépp xale koy def du seet rek la mën du nekk ci réseau yi donc di wax nit ñi li nga xam ne mooy seeni jafe-jafe di leen ko saafaraal ni ma ko waxee sànq rek waajuram bu jigéen da koo jàngal togg war ngaa gërëm kenn ca waañ ba ndax waañ wa tàng na tàng na lool te soo ba léegi mi ngi nekk ci waañ bi dëgg fa neex yàlla amul kenn ku ko ciy teg loxo wala nga koy jàppale yépp mi ngi koy jël en main daal gis ngeen ni muy mariner ginaar gi ah nee naa leen dara du leen rëcc dina leen wan lépp détail par détay ngeen gis ni nag wax dëgg. kon instant bi nag ñu ngi jublu ci li nga xam ne moo di soos bi fas yéene koo togg mooy ñeex bi gis ngeen ni def na dëwliñam ci biir cin li yéen a ngi koy gis noonu mi ngi koy sotti pour togg li nga xam ni moo di soosam sotti na dëwliñam yaay Fall la grande voyante comme li ma koy waxee saa su ne rek ngeen xàmmee ko ci tiktok bi ci réseau yi di faj aajo nit ñi du loolu kese nag la mënee wax dëgg fa neex yàlla ndax gis ngeen ni leen toppalee lépp ñu nag yéen ca araw ba ñu nag yéen ca mooñ ba ñu nag yéen tay ba ba ni muy xeppatee ba ni leen koy toggalee li nga xam ne moo di soos bi ak ni mu du raxasee ginaaram yi yàpp bi ni mu toggee li nga xam ni mu xollee li nga xam ne moo di ay lujumam kon noonu rek lañ koy toppalee ba ba soos bi pare nee naa la ñun ak yéen ba keroog yaay faal di yàq dara du leen rëcc tout les détails incha allahu rabbi di ngeen ko am li ma leen di wax rek chaque jour aimé leen partagé liké ngir ngeen man jot information à temps te nag gis ngeen ko da koo def rob bu baax ñëwul ci waañ bi def sërëg tiset nee na loolu la bëgg a génn ci ci ci réew mi sërëg tiset ndax boo xoolee hygiène rek la jiital waaw daal koy aj dal daal di bay di béy bi xeer gis ngeen na muy fompee waañam ndax sànq li wax ji di bari bari bari jël li nga xam ne moo di Euh, baleem wax mu ni ma faa mu ni ma mu ma puusal ma bale sama waañ ba pare instant bii nag mi ngi nii nag di ko di fomp di waajal di waajal def li nga xam ne moo di soos bi lépp ci ci ci hygiène nee naa la fii hygiène du fi jaar service d'hygiène du jaar fii waa kon Samba dañ koy biis teg suñu foofu lu baaraam ba soos bi pare ñu xool pour tax pour tax geeg doora ji jeex na amul mi ngi nekk ni instant bii nag duro si ginaare diwlin bi sens na gis ngeen numéro Seydina Ali mm-hmm. kon daal spécial tam xarit see yaay Fall yeneen gis ni instant bi la si ginaar yi kon xale yi waaj leen ndax soos bii ma gis na te nekk soosu como de waaw cero si bala gis ngeen ni muy de mhm. lii rek da lay jox envie nga lekk ba suur abaat ndax ni mu koy defee set na civilisé na ay xeetu matériel am man dama koo ragal lii rek ça donne envie de manger lii tax day tax nga am appétit mën a lekk ndax euh, lekk boobu bu setee sel rek ah da envie lekk ndax ne naa la biir kaso la lu ci xës ba dugg jeex na. waaw lu ci xës ba dugg daal jeex na loolu mu ciy def mooy la ariko blanc moom la war a bombee cere bi ariko blanc waaw ah, nokkos baa ngi noonu amaat gis nga la muy nokkos gis ngeen li muy nokkos mooy base nag bu baaxee togg yépp ay baax waaw ca nokkos bala kon yi war a dem ci nokkos be yooyu yëpp lay indi mhm. ñu naa la spécial cere xale koy def spécial taaje bool tam xarit bi macha allah ah xaaral ma tiimale ko micro bi mu daal décortiquer lim na la nokkos rek lii nokkos bi lépp a ngi ci saf waaw noonu lii bekk yi nga teg ci suuf leeral ko xale yi kaani verte soo lu drapeau Sénégal laa woote waaw def kaani bi def kaani xeej bi ci biir laaj bi oignon kaani salade après ma noqos soble bi oignon vert yëpp ci biir aussi tam yëpp laay defar noqos bu saf laa bëgg mel ni rekk noqos bi mooy base bi ndax nee naa la bu saful rekk ah oignon vert mooy lan rek fu ñu jàngul français. waaw ak ah, laa leen koy soble bu doon waaj a ñor te ñorul. <laughs> xaw ma nu tudd oñoo daal laa si xam. Mhm. waaw maa ngi noqos ñoom ñoo noqosu. kon nii lan la leen koy defee dañ leen di toppal. ko defee nag après ca soos ba la ñuy jublu mu daal di neex téye leen ko foofu rek. may fàttali lu Père Mbow doon wax neen xale yi toggatuñ Père Mbow Père Mbow ñoom galo ñoom ñoom jàññaar ñoom galo xam na lu ñuy wax Père Mbow ko wax ne nañ xale yi toggatuñ dañoo bëgg resto mais xam nga ni yaay faal mii dañ kaa tàggat si togg xoolal ma lii rek macha yow kii li ah, ah, nga xam Samba looy sànni ah yaay Fall moom lu may wax chaque jour rek moo dàq seet moo dàq togg waaw yamul si seet bi kese waaw macha allah. waaw gars yi yóbbaale nañ ma géew mun naa ne su ma waxee ñoom li ñu wax lay laay wax waaye loolu mun nañ ko seede ndax ñu nem nañu loxoom ci togg comme ni ko ñëpp waxee rek ah. yow plat bu nekkee kay bu ne ñam nañ ko fi yàlla wërsëgalee nañu loolu waaw <laughs> gis ngeen ko ba leen koy toppal leen koy toppal rek caméraman yi ñoo wax du samay wax ah ah xeere loo ko mm. ah, jërëjëf gis ci waañ bi gis ni ko ni muy togg hmm? ni sànq mu koy ci waañ nan ban jàngangat nga nga ci am jàngat ah moom daal set na daal set la gën a am solo ci waañ mooy set parce que nit ki moom bu sa jëmm setul sa waañ setul kenn du lekk sa togg waaw loolu neex na ma ci waañam bi. tey nga xam dañuy wax naan yaay faal seet gi rek la man mënul ci ci ci tey ci ci li wala dara nga leen di wax yow mi dëkk ak moom nekk ak moom. ah loolu ñu koy wax daa fekk ñëwuñu biir këram ba fekk ko fi. moom bëggul sax ko toggal mooy xëy fajar dugg ci waañ bi toggal boppam jox nañ ñu lekk moom dafa mën a joxe lekk moom ak togg la kaa sawar loolu ñu koy seesi ko. Mm-hmm. Mm-hmm. yaa xaal toggal leen awa dañ koy ngeen li nga xam ni moom lay togg ni nag parce que instant bi nag mi ngi ñuluk mi ngi russi sax laay wax au moins ci li nga waajal li nga xam ni moo di togg soos bi comme ni ma la ko waxee nee naa la chaque jour rek dañuy bëgg di leen indi lépp luy actualité lépp loo xam ni defu na ci actualité moo tax gis ngeen leen leen ko toppalee dès commencement gis ngeen tamit noonu nga xam ni noonu la yaay Fall doon préparé li nga xam ne moo di cereem dafa mel ni nag ñu ngi bëgg a yegg ci li nga xam ne moo di cëppaandaw bi cëppaandaw bi nag boo ko waxee instant bi ñu ngi toll ci li nga xam ne moo di euh, togg soos bi te ku ne xam na ni soos bi jëlul temps bu bari malgré effort yi nga xam yëpp fournir na ko woon o commencement dès au début euh, rien que pour wan sénégalais yi rek ni nekkul nit moom li nga xam ne moo di seet kese lay def mais am na ci point yoo xam ne foor na ci donc euh, macha allah gis ngeen ni mu koy doxalee. ñu cappaat ko ba ci kanam a kanam gën leen a waxaat affaire yi mu leer nañ nañ nañ gis ngeen ko ndax nee nañ rosi mooy base bu rosi baaxee rek lépp mooy baax kon noonu la amul leneen lii kese la <laughs> c'est bon mi ngi ci rosi ba léegi pour mën a waaw ok c'est koy gisee noonu ah instant bi nag def na tamaateem te nee nañ xale yi nee nañ rosi mooy base ndax bu dogee wala mu dooree lépp dafay feeñ ca commencement ba kon lii mooy lii mooy secret togg bi lii mooy base bi te lii ngeen di xamee ni carrément que ni jigéen mën na cee togg ndax bu dooree nag ci ngay xamee nag wax dëgg fa neex yàlla mën na yaa ngi gis noonu mi ngi dugal ay léjumam waaw gis nga noonu euh, jël may ko batmaa rek instant bi mi ngi dugal euh, léjum yi ñoom ñoom karoot ñoom ñoom navet mi ngi dugg waaye ah, yaa ngi gis ni mu koy defee malgré loolu sax da raxasaat ci ci ndox bi nee naa la hygiène chaque jour rek la dawal yaa ngi koy gis noonu mu jënd nag ay chou yu baree baree baree baree bare le peuple est content le peuple est vraiment content waa ginaar yi yaay ginaar yi tax ko heure bi walla da ngay bàyyi ba ci kanam mhm. ginaari waa damay xaar ba ci kanam carotte bi ak ñàmbi bi rek laa def moom kenn ko recevoir mais yii moom mën nga ko def si tamaate bi bu la neexee recevoir xam nga Sénégal bu ku nekk ak toggam ku nekk ak na nga koy toggee waaye yow dangay ngay def lu ba pare ba ci kanam kanam ginaar yi soog a ñëw fekk affaire yi doore ginaar yi mooy mujjee waaw kon sàmba jëlal cin li jëlal ci biir gaa yi gis ni da ko dooreel carrément xam nga ni kii demul marché peese nag wax dëgg fa neex yàlla tamaateem ko gis xam ni bari na sakkan na macha allah. déedéet ñuulug na ko nag ba léegi rek gis ngeen di ko yaay Fall la grande voyante di ko doxalee am na solo. day de ko xool xam ne wax dëgg fa neex yàlla nag euh, doore yëfam la am na solo de ñu ne lañ koy toppalee rek nee naa la tey spécial cere jeeg taaja bon ji dañ koy ànd ak yaay Fall la grande voyante yaay Fall mi nga xam ni mooy boroom jinne yi boroom seet gu leer bu leeree nañ moom la waaw mu ngi def soble si nag gis nga ni muy defee soble si macha allah nokkos bi waaw baax na cere ji da yàlla def na nag wax dëgg fa neex yàlla ñoo ciy lekk waaye yàlla bu ñu cat topp yàlla nañ ci cat seexlu ndax nii mu koy defee nii macha allah am na solo muy dolliwaat ndox bi rek ndeysaan moom yaay Fall la nag da ko daa wuy turam ndax boo xoolee këram li fi ne bariwu sax waaye gi nga fa mu teg lii day wane ne rek bëgg na ñépp xaj di ci yëkkalaat sénégalais yépp rek képp kuy bëggee yaay faal wala ngay soppee yaay faal foo mënta nekk ci àdduna bi rek yaay faal fekk na la fa nga toog daal lay yàkkal te naan la bon appétit ñépp la yàkkal nee képp koy tiitaroo di ko safoo ndax ni naan la bëgg dafa foor te xamul ñu ko bëgg te ku ne te ku ne la waaye nekk bëgg ko ci àddina ñi mu gis ak ñi mu gisul ñépp ñu ngi leen ko yàkkal di leen wax bon appétit ah c'est bon baax na su baaxee rek mu daal di dugal li nga xam ne moo di chou bi moom su am na sol yéen gis ni muy dugalee chou bi noonu hmm? Hmm? ma ñëw nii ace baax na daa mel pause la waaw waa gis ngeen dugal na ginaar yi ku xool nag xam ni wax ginaaru olof la xam nga ginaaru olof dafay xaw a dëgër bii mooy ginaar si léegi bi lu tax ma tel ko dugal ak yàpp bi pour mu teel a ñor mais ginaar yee moom xam nga dafa gaaw a ñor dañ koy bàyyi ba ci kanam rek ba ndugg yu ñor ak yooyu soog koo diigal ci biir ma ñëw préparé defar lu may bombee sama cere defar sama bomb dëkk bi yëngu. te li ci gën a doy waar mooy ginaaru olof dafa dafa dafa jafe am de. moom la def ci cere ji nag moom yaay faal ginaaru olof. Ah, mhm. am na ginaaru olof de. mel ni la ciy def moom xorom. am na solo de. Mhm. dëgg la. gën rek dafa jafe mais jàmm gën laa ko amee foofu boo fa demee naaj ko ñu të boo fa demee ginaar yëpp nga fa ginaar yëpp a nga foofu jàmm gën ah i dégg pertaaw ginaar boo am na solo kon ginaar gaa ngi noonu. ok donc ñu ngi continuer toujours ci li nga xam ne moo di spécial tamxarit ñu ànd ceeg yaay Fall la grande voyante gis ngeen toppal na leen li nga xam ni moo nekkoon togg bi ba tey jii nag ñu ngi ci cëppaandaw bi ndax boo xoolee euh, moom yaay Fall nag instant bi mu ngi li nga xam ni moo di bomb cere ji mooy phase finale bi gis ngeen ko. bombu cere ji noonu lay ñëw def kon gis ngeen messager yi nga xam ne mi ngi ko ciy def jël na sauce bi daal ciy def ci kaw cere ji ah. pour fas ne ko euh, bomb léegi damay turne nii rek laaj ko li muy def moom lan lay signifié yaay ñeex bi nga ci def pour lan non dama koy bomb mhm. ma koy bomb nii rek yaa ma gën noonu xam nga cere moom faaw nga bomb ko loolu suñu baax la ma ñeex biñ ci sotti lan la koy def nooyal bi la wala da koy jox gu ah da koy jox guu nag parce que bu ma bombee pare boo ñemee par rapport ak nu mu meloon am na différence. am na différence. Mhm. bii nag boo xoolee euh, ñu ngi ci jëppaandaw bi commencement bi ba fin bi nii ana lan nga yëg ak euh, ànd bi nga xam ni moom ngay ànd ak sénégalais yi ñu la ciy seetaan. waaw kontaan rek gën woon gaay sama bopp. di wax na am na yeneen toog yu garaaw yu ma denc yu gën a garaaw yi sax waaw te man gis nga su ma toog duma sax bëgg nit di jàpp ndax damay bëgg a wan gars yi sama mën dëgg neexul dafa yépp sama bopp loolu dama koy taam lu dëgg waaye kay nit boo mënee dangay wan ni nga mënee man sama cere su ma ko defaree pare mun nga kaa lekk sax saa nga def si ñeex bi nag parce que day neex mhm. donc gis ngeen ni mu koy bombee am na contentement ànd ak ñun depuis lors gis ngeen ko nag cin li macha gis ngeen ginaar yi ni muy tëpp tëppee boo xoolee rek xamal ni euh, ki nga xam ne moo di yaay faar nag dem ba marché ba daal di peese peese de lii ko xool xam ne macha allah lépp super ah kon bomb baa ngi noonu li nga ci def ba euh, euh, lan la yaay. ay la haricot blanc waaw yooyu laa si laalaat nii rek affaire bi gën a joxe. def ci la nga xam ne moo di ay raisin cerewul nag day cerentuwul daa cere waaw damaa cere nag waaw mais na commencement beeg début beeg dem tuuti tuuti rek parce que gis nga waañ bi tàng na tàng na trop mhm. en fait ñu assumé ko rek góorgóorlu ba ba yëpp pare nii yaa ma gën a no su ma paree nag <laughs> ñoo dugg daal di laal sama benn roobu yaqee ko sama reer waaw kon daal di change tenue ngeen gis nam koy taajee euh, macha allah nag woo na ci ñëpp ay am di jàmbam ñëpp a ci kër gi toog di xaar bés ñëpp laa waa xam nga ñëw daal def sangu tuuti changé ñëw yàq reer bi mm-hmm. réew mi daal di waaj émission bi tam xarit ñu ànd ci ak Yaay Fall la grande voyante ginnaaw bu ñu àndeek moom depuis ce matin euh, bokkandoog moom journée bi àndandoo ak moom ngir mu toggal leen cere ah, ngeen seetaan foo xam ni que manewul lenn rek ci seet bi mais plutôt mi ngi ci togg bi macha allah ginnaaw bi mu defaree cereem mooñ ko defar tey ba yàlla def mu yegg si fii ah, moom la yekk nii ci bool bi waaye tamit gis ngeen tànk toppal na leen li nga xam ni moom la def ci soos bi togg na ko. Euh, ginaar yi ni mu ko raxasee ak duo bi nga xam ne def na ko muy boole nag ginaar ak yàpp ngir nee mu daat ko jox li nga xam ne moo di goût euh, je pense que nag instant bi nag euh, tout est ok li ci des mooy gars yi daal di dégusté xool fan la ni te lépp lu ci am incha allahu rabi dinañ leen ko wax ndaxte ñun ay taskatu xibaar lañ te lu lu lu logique lan la def maanaam ñu baaxee noonu la leen koy joxe donc gis ngeen ko waaye nag ci yàq bi dafa def lu day waar dafa def changement daal di dindi bi nga xam moom la doon toggee duggaat sangu nag ba bien ñu ni déetawaat mu daal ñuy euh, laalal bu la bikk ku ne xam na ni couleur ku xees la macha allah mu daal koy sol fas yéene nag yàq cereem gis ngeen ni mu koy defee benn par benn la koy jël di ko teg ci cere ji di orne ba mu am jam nee naa leen dara du leen ump dañuy bëgg chaque jour nekk au cœur de l'actualité di leen informé lu baax lu neex lu sûr moo tax ñi profité waat ci occasion bi tamit di leen baalu àq bu wér a wér ba pare di leen baal àq nag ku ne xam na ni wax dafa garaaw dafa dangereux dañuy wax dañuy wax bu ñuy wax nag des ñu wax ba ba tooñ doomu aadama ay tamit des fois ñu wax ba laal lu ñu warta laal loolu lépp du sunu dëng du dara dañuy bëgg rek ngeen ngeen ngeen ngeen di sentir ni li ñuy def yéen a ngi koy yëg ñu am ci plaisir boobu ndax fu ne la ñuy daw nag pour uti ji image rien que bu faire plaisir. Amar xam na li may wax Samba xam na li may wax si rajo xam na li may wax amuñu benn heure mais lii rek lañ bëgg donc gis ngeen ni mu koy yakkee noonu moom yaay Fall la grande voyante mi ngi toroxal ndugg yi di ko ci teg benn par benn jël ginaar gi di ko ci teg benn par benn maanaam lépp ñëwul rek sëlëxëñu ko maanaam lépp da ko da ko da ko harmoniser ba pare Amar li ci gën a doy waa sama maam nee na ñaam bu njëkk xam ñu ko daan wax pulox pulox puloox xaw ma puloox puloox moom da koo jënd lu baree bari ak karoot ji moom carotte te dégg naa day njool loo waxate carotte carotte yaa ngi ci biir déedéet waaw ba pare nag li gën a doywaat ci cere ji nee na moom euh, ginaar bi maanaam ginaaru olof la da koo jàpp ji mooy yi jàpp ci àll xam da ngay daw ba sa tànki aju rek nga ne ko katis jàpp ko moom yooyu la leen toggal nekkul ci yi nga xam dañ koy def ci frigo bi di ko glacé muy yàgg moom da leen a jàppal yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ci dëkk yi ñu indi leen ko parce que bëri na lu muy def ci doomu aadama day faj moom la def cere nag te li ma ci gën a neex nag ci orne bi ñëwul rek di sànni loolu da koo teg palaasam ñu war a nekk ci bunt bi nekk ci bunt bi ñu war a nekk ci pojom bi nekk ci pojom bi war a nekk ci entrée bi nekk ci entrée bi ba pare changé waat kuddam waa ndax népp placement la ko def am na waa loge am na waa gétt bay am nañu jënd VIP ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bunt bi dañuy xaar mbalit ñi nga xam dañuy xaar euh, maanaam temps bi jeex ñu dugal leen waa mbalit yooyu yëpp a ngi ci biir ndax mu ngi noonu moom lay siif mooy waa mbalit ci noonu sax dafa changé kudd bi nag jëlaat beneen kudd waaye yaay lan nga lu tax nga taamoo nii nii décoration bii nii ah boo toggee ba mu neex kay da kay décoré rafet waaye doo ñëw rek jalkasi mm-hmm. déedéet du noonu def xale yi duñ ci bàyyi xel ñoom dañuy ñëw rek gësum daa teg ah loolu du yoon nag boo defaree ba mu baax sa defar day mat bu dëgg. dëgg la. ni laa def. Mhm. lu ma la waxoon rek woo naa si ñëpp si cere su ma paree nee na xam nga di ngeen di xaw a yaa xam mais su ma paree. Mhm. damay daal tibbal dëkkandoo yi ndax xam ne nee naa la sama kër dafa xaw a weet waaye samay xarit nee naa la ñëw na ak samay doom. dëgg la ñëw lekk si cere mais du tee bu ma paree damay daal di yàqal dëkkandoo yi rek. comme ni ma ko daan defee chaque année man loolu laa xam. yàqal waale yi yàqal. comme ni ma ko waxoon. Mhm. dèjà damay yàqal Faramareen yépp yàqal waa kër Serigne Sallou teg ko ci loxo Mouhamed naa sama waa ji jël yàq bi teg ko ci loxo Omaro mu jox ko Mariasine mu sedd leen ma ko Faramareen yàq bi yàqal naa ko ñëpp waa kër Serigne Sallou naa ko ñëpp voilà. Mm-hmm. kon gis ngeen yàq na yàq bi dañ koy accompagner. tamit naa la ko sama journaliste yi nga xam ne. Mm-hmm. xeboo leen ma benn yoon. lu xew ngeen dagg seen temps fi suba ba tey yéen a ngi nekk ak man. Mm-hmm. Euh, di daw di sonn te bu leen neexoon tamit du leen ci fekk. mais tamit kontaan naa. wax à rek. si kanam. sañse bi bële bi bi. def ko yëfu mag rek du rek. xam naa noo ko simple. léegi lañ koy gunge rek amaat mu daal di taaj yi li nga xam ne moo di cereem acca kon ñu koy accompagner rekk mu daal di yekk li nga xam ne moo di cereem waaw xaaral acca on gis nga nii la koy taajee rek woo ci ay xaritam ay am di jàmmam ay dëkkandoomam

gars yi ñu wax ba wala station. léegi bu ñu mel mel na ko ci wax. da ngeen wax ba xale yi da ngeen wax lépp rek ko defee gars yi xam ne à travers lu ko jotee ci xob bi moom tamit lañ war a xamee ni que mënewul loolu kese donc sans plus tarder rek nañ samp gars yi daal di toog bu ko defee ku nekk wax li nga yëg.